jërë ngeen jëf Macky Sall ak son Sonko seen wu nekkin bu doon cere la ñu ne xas na xajam ba far yegg ci karaj bi l'observateur yéenekaay bi ne nañu donte ñoo ngi seet jàmm ak dal nu mu amee ci réew mi terewul muy Macky Sall di Ousmane Sonko ku ci nekk ci ñoom ñaari yaa nga taxaw fa nga taxaw ngoy ca la nga ngoy ni kii di président Macky Sall dégg nañu ko keroog ba muy dajeg waa société civile gi mu xamal leen ci biir yi xam ne mbir su xewee ci réew mi mën nañoo toog waxtaan ci waxtaane ko ba am ci saafara waaye état bi moom du nangu ba kenn di ko xoqutal wala état bi di taxaw di yox yoxi ci lenn moom Ousmane Sonko njiital parti Pastef l'observateur mi ngi ñuy wax na ne li fi nguur gi dund bu yàggul ab téeñ la rek bu ñu teggiwul tànk yan bi dana ñëw te bu ñëwee muy gën a metti ci ñoom journal bi nañu Ousmane Sonko diggée na deuxième wàgg gu nar a tar ak nguuram kaddu Sonko yooyee moom la journal Vox Populi xëy ci xëtamu njëkk mu di li mu ne li ñuy sàkku suñu ko amul li fi woon lu ko raw dana fi ama te bu boobaa ñoom ñi ci nguur gi ñoo cey ñàkke la si ne kay nañu Ousmane Sonko seral na ay kàddoom ba wàññi xadaram nee na démb ñun amuñu benn problème ak réewum France suñu xeex nekkul di song ka yàqate li réewum France moom ci réew mi mi mënuñoo bëgg a dooleel investissement direct étranger bu noppi di bundu xatal ay étranger yu nekk ci réew mi moom moomee di Ousmane Sonko Sud Quotidien xamal nañu ne gisee na démb ak Khalifa Ababacar Sall ci àndandoo def benn dànk ngir xeexal démocratie ak état de droit ci Sénégal ci loolee la ñu taxaw Sud bind ne Ousmane Sonko xaal na yoon wa Khalifa Sall biral yéeneem ngir ànd ci ak moom Le Quotidien nañu ab lëngoo ngir jàmmanlo ak Macky Sall moom la Khalifa Ababacar Sall ak Ousmane Sonko dinas waaye a juuyoo nag yéenekaay bi nee nañu moo di ci élection locale yi ndax kii di Ousmane Sonko bëgg-bëggam moo di ñu def élection nu mu gën a gaawee organiser ko ci gi ni ñu ko bindee ci mémorandum waa M2D ci jamono joojee kii di Khalifa Ababacar Sall moom li ko gënal moo di bala ñuy amal ay élection locale ci réew mi ñu auditer fichier électoral bi ba noppi lu sotti am borom autoroute APS Dakar Diamniadio Aïda Port Blaise Diagne état bu Sénégal bokk na léegi ca capital ba Soleil national moo bind xibaar bi ci xëtamu njëkk ba dolli ñu ne lay amee ci capital na ko ba mu doon léegi lu mu néew néew 800 di ñetti téeméeri millions at mu nekk réew mi ko tëjee nañu loolee nga xam ne njiitu mi Macky Sall ba mu yegsee ba léegi nu mu ko lijjanteeg nu mu ko réglé rek la doon seet ministre bi ñu dénk wàlla infrastructure ak transport bi ba état bi dina yu mu ciy am at mu nekk lise ko gis na état bi dafa fuqat li mu yayoo ci autoroute APS bi journal bi tegal ñu ci ne ci juróomi weer Mansour Faye réglé na loo xam ne ñi ko jiitu nañu yàgg koo wut waaye mënutoon a sotti léegi nag société bu ñu naan Seka mooy wutu Senac SA ngir mën a waggar bu baax a baax ci intérêt yi réewum Sénégal am ci autoroute APS bi njiit réew mi Macky Sall yéeneeg bëgg-bëgg bi mu am ngir wutal ndawi réew mi ab liggéey la ne nañu du ca wéet ndax maire bu Dakar Plateau di Alioune Ndoye dooni jëwriñ gi gàll wàllu pêche ak économie maritime taxaw na ci jàppale ko ci bu baax a baax journal bi nañu moo ko démb moom mbiru emploi des jeunes bay naal ab conseil présidentiel mu ne it keroog fukki fan ak juróom-ñett ci wéeru février dajana ak i jeunes yu yorooni projet ba jàppale leen ci lu mat ñaar fukki jeunes ak benn yu nekk ca Dakar Plateau wutal nañ leen ay liggéey ba boole leen ci ay contrat durée indéterminée mu ne ci ñoo ngeek yeneen projet yoo xamante ne ji li tax a jóg moo di tabax ay marché ak i logement te ci yooyee ñoom jeunes yi ñoo cay nekk ñoom lañu ñu cay teg ngir ñu doxal ñaawlu na it fitna ji amoon réew mi fan yu ñu génn naqarlu ñi ci faatu masawut ñi ci yàqule awa siise benn xale bu jigéen la bu toll ci fukket ak juróom-ñaar ñu doon bindaanu ci génn kër gu nekk ca gaay mexe ndaw si mu doon liggéeyal di ab patronam ñu ko Ngóone Fall yat ba mu jaare ca faatu yëf yi mi tukkee ci jàppante bu amoon ci seen biir ci guddi gi Ngóone Fall mi jël aw yat dóor ko ba mu faatu nee na dafa jàppe woon xale bi ne ku mu bokkal jàppoon ne ku bokk ci seen famille la moo tax bi mu jàddee aw yoon mu bëggoon ko jubbanti ba musiba moomee fekk ko ci moom Ngóone Fall mi dóor aw yat Awa Cissé ba mu jaare ca faatu libération nee nañu yoon teg na ko loxo mën nga ñu téye ba defeere ko war koo àtte tuumay dóor nit ba mu jële cee gaañu gaañu jaare ca faatu mu di ku et blessures yu jur bakkan bu rot loolee la ñu koy toppee. qui s'unit qui se renforce loolu moo doon solowu plateforme d'action bi nga xam ni moom lañ doon dox. nemmeeku bi usman Ousmane ko demoon nemmeeku Khalifa Sall ci siège bu taxawu dakaar loolee ñaari hommes politiques yi dañ ko jàppee ak ndorteel ci xeex li ñu jàppee opposants yi nga xam ne dañu leen di noot ci réew mi. jërëjëf Abdou Diouf euh, Junior RFM juróom-ñetti waxtu tegal ñeenti minutes. RFM askan wi. juróom-ñaari militaire doomu Sénégal bokk ci détachement euh, soldats yi Sénégal ci Mali ñoo amay gaañu gaañu ci accident bu seen wota def waa DIRPA xamle lu ni mel DIRPA mooy kuréel gi nga xamante ni moo yittewoo lépp lu jëm ci wàllu relation publique ci armée bu Sénégal seen euh, wota ni ñu ko waxee blindé gi moo daal di euh, def ab accident waral seen gaañu gaañu yooyu ba ñu rawale. ci hôpital principal lépp Ndakaaru euh, Sénégal ci wàllu ñàkk bi nga xamante ne mooy AstraZeneca gi dañu koy wéyal ministre de la santé moo xamle lu ni mel démb ci ngoon ginnaaw bi mu xamle it ne boobaak léegi ñu ngeeg matuwaay yépp ngir may gët gi ñeel vaccin beek njeexite yu mu mën a àndal Abdoulaye Diouf Sarr ñu teewlu kook Saliou Sow vaccin yi nekk ci marché bi muy euh, AstraZeneca muy Sinopharm muy Pfizer muy Moderna muy sax Sputnik V yooyu yépp suñu borom xam-xam yi ñu xamante ne ñoom ñoo yor commission bi liggéey ci wàllu ñàkk ci Sénégal saytu nañ yëpp ba bu nekk rek ñu jox ñu si effectivement naka lañ si war a taxawee moo tax ñu commencé Sinopharm dem jënd ko ba Chine ñëw démarré parce que boobu initiative COVAX indeegul woon seen vaccin bi COVAX indee seen vaccin muy euh, AstraZeneca tam ñu introduire ko may wax ne commission Sénégal bi xamante ne ay borom xam-xam si wàllu vaccin ñoom ñoo ko ŋànk ñu dara loo xamante ne danañu tax ñu génn si AstraZeneca mais organisation mondiale la santé nga ne ñoom ñoo yore lépp lu jëm si mbiru santé si àdduna am commission buy surveiller lii yëpp ñoom tam ba fi ñuy wax ak yéen amul dara lu ñu si wax même Europe ba ñu koy génne si yenn dëkk yi agence européenne du médicament amul donc lan lu ñu si wax lu ñuy mën a tax ñu dellu gannaaw bon nag ñun am nañu benn euh, dispositif euh, de vigilance boo xamante ne day surveiller bés bu jot lépp lu ñuy wax euh, effet yi xamante ne donc day am après vaccin loolu ñu ngi koy surveiller si anam yu mucc ayib may euh, rassurer sénégalais ak sénégalais yi di leen wax ne Sénégal dëkk bu mag la si wàllu donc euh, médecine dëkk bu mag la si wàllu vaccination parce que euh, ça fait 40 ans ñuy vacciné donc lépp loo xamante ne war na si pour que ñu encadrer dispositif dans la sécurité ñu ngi si maa ngi dalal xelu ñëpp ñu ngi continuer suñu stratégie de vaccination si kaw ñaari vaccin yooyu muy Sinopharm ak AstraZeneca mais si surveillance boo xam ne surveillance danañ ko xam. mu nekkoon monsieur le ministre de la santé Abdoulaye Diouf Sarr doon nemmiku démb ci ngoon hôpital Fann bi doon dalloo ay euh, matériel di jumtukaay yu xereñ méngoo lool ak jamono ci wàllu scanner ak yeneen abattoir ba nëkk noonu lu toll ci euh, milliard ak genn wàll dem ca Salif Sow ci wàllu reportage. Fann am na lu ñuy wax IRM imagerie médicale bu l'hôpital Bilé moom la mujjee visite mu doonoon visite bu gaaw. parce que ce pas moins de un milliard millions. qui ont été injectés. Euh, li ñu fi gis yëpp nag mën nañ rek euh, na fukki millions yoo xamante ne. dugal nañ ko pour que ñu rénover service euh, pneumologie bu hôpital Fann. mais leneen li ngeen gis yëpp nag effort état bi la. Abdoulaye Diouf Sarr jéego yu mu sekki baax na waaye doyut kàddu yooyu ku koy yëkki mooy ki jiite laboratoire bi nga xamante ni def fa ay matériel yoo xamante ni it yu yees la moom professeur Madiaye Guèye biologiste la ci wàllum lopito yi le ci kanamu jëwriñ ko ñu ko wàllum wér-gu-yaramu askan wi la yëkkatee jafe-jafe yi jëmp yi ñun bëgg nañ ko ñu jàppale gis nga appareil yi nga xamante ne moom la ñu am fii waaye bëggoon nañu mu gën a yokk bëgg nañu itam ay jumtukaay yoo xamante ne dina tax ñu gën a mën a doxal suñu liggéey yokk ci li nga xam ne moom la ñu jot a am loolee nag moo tax ñuy ñaan ngir nga daat ñu jàppale jamono ji nga xamante ne am nga ay responsabilité comme ni nga ko gisee am na lu bari loo xamante ne bëgg nañu koo yokk ndax am na ci yenn ci ay analyse yoo xamante ne dañ koy yóbbu ba France wala beneen dëkk yi itam. at bu nekk laboratoire bi lu mat ñetti téeméeri junni résultat mën na fee génnee. c'est a été bañ fa génnee délégation bi doxantu na ci bërëb bu ñuy dalal ñi amee jafe-jafe jëm ci wàllum xëtër te ñu defaraat bërëb bi bile moom Abdoulaye Diouf Sarr ak délégation am xool nañu fa ñu mën a dalal way tawat yi lee ëpp na lal ya juróom-ñaar fukk ci lim bërëb booba professeur Nafissatou Omar Touré moo koy ko jiite. jërëjëf Salif ñu des ak wàllu wér yaram ak euh, li nga xamante ni mooy doxalin ak tëralin wu nguur ak Sénégal tëral ak léegi euh, ci wàllu lawal gi euh, paju mi yëpp maladie universelle euh, tëralin woowee nag euh, diwaan gu ci mel ni Kédougou ay jafe-jafe ngir law gi euh, ñeel ka ngir askan wi ndax donte sax téeméer yoo fa jël ca googeeg diwaan juróom-benn fukki ak ñeent ñoom am nañu kiiraayu ko séwmi gi waaye te am na fokk sooxee bokk ci li ko waral bu nu sukkandikoo ci gis-gisab gi kilifay diwaan ga mooy boor yu diis yi nga xamante ni ñi bénéficié woo bourse sécurité familiale dan ko ameel mutuel de santé yi Ibrahima Jabaxate Kédougou mënatuñu honoré seen i engagement ndax bor yu bëri Mariama Camara mooy présidente mutuelle santé nafa bu Kédougou ndaxte instant yi fu ñu toll ni ñu ngi am bor ci maanaa ci diwaanu hôpital ak ñetti pharmacie yu toll ni six millions trois cent vingt-huit mille cinq cent cinquante francs lu waral dette yooyu maanaa dette yooyu maanaa bourse sécurité familiale ba tey état yi du leen subvention subvention yu mujjee am mooy 2018 mooy maanaa 2019 ñëwul 2020 ñëwul waxaguñu 2021 te subvention yi sax buy ñëw ay kudut lay doon maanaa toq la boo laajte fukk ñu indil la ñaar xam nga day gën a yokk rek. li waral situation bi ni mel mooy caractère social bi am kuréel yooyu Toumani Camara mooy PCA union mutuelle santé bu Salémata. état bi joxe ay subventions yi quoi parce que bénéficiaires bourses yi ñoo gën bari ci mutuelle su ma xoolee Salémata euh, ñetti junni ak téeméer ak fukk ak ñi ñoo nekk euh, ci mutuelle yi comme bénéficiaire de bourse donc euh, ren kii at bu nekk ñu am 400 cotisants at bu nekk te nag xaalis yi 400 yooyu.

ñun UDAM seen droit la. pour lu mel ni mën a antu fokk ñu am ay coppite ci biir mutuelle yi pour ñu ñu samp benn fonds de garantie régional pour ñu gën a mën am doole ak euh, efficacité fii ci région bi Ibrahima Diabakhate Kédougou RFM. jërëjëf Ibrahima ñu des ak wér-gu-yaram gi ak jàngoro jeneen Ebola feeñ ci mbokk yi ca Guinée Conakry li nga xamante nag mooy gëstu yeeg la ci feeñ fan yi yéeme lool ndax danoo jàpp ñoom ñi yëngu ci wàllu kër docteur scientifique yi ne lu jëm ci jàngoro ji euh, du lu euh, cëppee ci jaww ji waaye ñi ginnaaw ñoo amoon jàngoro ji ba tey mën nañoo wéy di ko wàlle ca noonee rek la demee di doomu jàngoro kon bu jógewul ci euh, jaww ji ni ñu ko waxee Makumba Bey Institut Pasteur bu Ndakaaru li ñu trouvé mooy jàngoroy Ebola ji dekkiwaat gi Guinée jógewut bi yoon ci mala ña ko amee woon diggante 2014 ak 2006 la am ku mu jóge ci moom ba mu dekkiwaat ci réew ma docteur Ousmane fay moom responsable département virologie la ca institut Pasteur boobu bokk na ci étit bi ñu doon xoole carte d'identité virus bi. variation yi néew na te donc bu variation yi néewee ça veut dire que effectivement quelque part virus bi am na fu mu toogoon. nekkoon fa maanaam multiplié wul par mu nekk par exemple ci nit ki am ci yenn org yenn organes yoo xamante ni foofu la nekk yàgg ko wala mu jëg jaar beneen nit. mais nga xamante ni vraiment daal multiplication. vaccination yi waroon a am normalement amul. muy tekki ni kon junniy junniy nit ñi nga xam ne amoon nañ jàngoro ji ba wér mën nañoo wéy di wàlle fi mu ne nii di lu raglu ci gis-gisu docteur Ousmane Faye. dina xaw a tiital parce que dina xaw a tax surtout li gën a metti ci affaire yi mooy ñi nga xamante ni déjà am nañ feebar ba wér. ama kon dafay laaj vraiment ñu ci am benn jàngat bu ñuy def am na boo étude yu ñu jotoon def yoo xamante ni ay Guinée am nañu def en RDC actuellement mi ngi continuer et day indi rek ay vraiment ay jafe-jafe ci maanaam comprendre virus bi ni muy ni muy tëddee scientifique yi koy xool nag dañoo mës a jàpp ni virus bi mënul dund lu ëpp juróomi téeméeri guddi ci nit léegi mu feeñ ni nag juróomi at gannaaw épidémie bu mujj bi virus bi desoon na ci nit ba mën a wàllaatewaat 2014 2016 ñaar fukki junniy nit ak juróom-ñett la jàngoroy Ebola laaloon fukki junni yi ak benn mu rey leen mu des kon fukki junni ak juróom-ñaar yoo xamante ne nii rëccoon nañ ci te mën koo wàlle jërëjëf ma Makumba ngeen di ànd ak RFM ci xibaaru suba si ci wolof juróom-ñetti waxtu tegal fukki minute ak ñaar pour man RFM mooy rajo bi gaaw ci xibaar yu wóor. diwaan ak jaxaay ci département bu Tëngéej askan wa ci jafe-jafey nen euh, ndax euh, ni ngeen ko xamee ñoom ñooy ñi euh, seeni kër waame gi nangu woon ba ñu daal di ko sanc nepp commune foofe waaye nag du bërëbab liggéey ngir naw ji du bërëbu fajukaay rax ci dool it macha allah li nga xamante ne mooy lim bu takku ci askan wa fa yeewoo Abdou Diouf Diagne. njënd ak njaay wàllu maçon wala artisanat lii ñu ëpp ci ndaw ñi nga xam ne ñoo nekk si jaxaay ci la ñuy yëngu secteur yooyu nga xam ne nag coronavirus bi daf ko laal bu baax baax moo tax ñu bari si ñoom tey ji seen loxo jotatut seen digg ginnaaw état bi nag war na leen a bu ñu sukkandikoo ci Moussa Niang moom mooy président bu mouvement taxawu suñu gox dañuy gis ni ñoom dañ leen bàyyiwul xel kenn accompagné wul leen moo ñi nga xam ñoo nekk ci marché bi ñoom ñooyam amul benn projet boo xam ni état daf koy teg ñu leen ci bàyyi xel amul benn jeune boo xam ci biir commune bi am nga financement wala bénéficié nga ci DER benn appel boo xam dañ koy lancé waat président de la république Macky pour que mu venir en aide aux populations de Jaxaay dans son ñu bëri si ñoom jóge ci banlieue bu Dakar ginnaaw mbënd mi nga xam ne moo amoon ci atum jigéen ñi ñoom tamit ay jafe-jafe yu tar la jànkonteel Fatou Kane nekk délégué ca marché bu Jaxaay taabal gis na ni mel ni ay seng la bu ngelaw lu bëri ñëwee sax da koy naaw seeni borom toog di xool te am a jaxaay unité 17. guddi rek la am ndox gardien moo ñuy dimbali di ñu rootal te lim ñuy rootal du ñu satisfaire parce que école dafa bëri élèves presque ñi ngi ci à 900 élèves bu weesoo loolu am nañ problème toilette am nañ problème ay buntu am nañu problème mu banc franchement ça moom c'est notre problème majeur élève bu ci nekk à trois la ñuy toog déjà vu la pandémie xam nga élève bu nekk bu toogee à trois wala à quatre c'est un problème ngir nag fexe ba ñii yeewoo ci commune boobu nga xam ne mu ngi nekk ci département bu Tëngéej ci daal di mucc ci coronavirus bi mouvement taxaw suñu gox daal dina leen di jox ay jumtuwaay yu koy xeex bokk ci ay masque Abdou Diouf Diagne. jërëjëf sëñ Abdou ñu jàll wutali noto guy jama foofee euh, ñu yëngu ci wàllu mbéyam dër gi ñooy yëglu ndax euh, ñàkk jarle lambale gi ak li nga xamante ni mooy euh, marchandise bu des seeni yoxoo lépp lu ñu fay bay rek daanaka day yàqu ci loxo ya foofe rawatina pombiteer bi Cheikh Anta Diop ay saaku pombiteer oignon jàpp carotte supame mi ngi fees dell ci marché bi fii ci noto guy jama rawatina ci tool yi ñàkk gis ku ñu ko jaay daanaka légumes yi dafa lamb ba ñi nga xamante ni góob nañu pombiteer ci tool yit gis nañ ne pombiteer yaa ngi nëb mëggee njaay di baykatu pombiteer liñ doon xaar ci gerte ren ñun zone des Niayes am nañ ko ci pomme de am ko ci carotte am ko ci chou am ko ci légumes yépp sunu problème mooy marché bi moo yàqu ndax fan yee passé kaani poivron mi ngi doon jar kilo juróomi dërëm ki yàq na kenn la mooy muy Senegindia dafa waroon a bàyyi ba baykat yi zone des Niayes ñoral ba pare ba jaay ba pare moom mu denc chambre froide doo ko génne waaye day concurrence ak ñun janvier mooy jaay février mooy jaay nee nañ ko le 20 mars nga war a arrêté mi ngi jël pomme bi yëpp sotti ko ci biir marché bi te grenaille la yor pomme de bii ngeen gis ànd naa ak commercant léegi mu gis ko nee na mos a gis production bu mel nii. ba Ndiaye mi nga xamante ne moom moo jiite kuréel yi ëmb baykatu dër yi nekk fii ci nootu guy jamaa nee nañ jafe-jafe yi nga xamante ne am nañu ko mooy ñu fa denc seen pomme yi ba du nëpp. léegi nag dañoo am tiitaange boo xam jàpp nañ duñ ko mën a jaay ndax. amuñu ay chambre froide yu ñu ko denc léegi nag pomme de terre yaa ngi génn mais amuñu fenn fu ñu ko def lul jël taatu garab yi sàng ko ci te ñoo am concurrent boo xam ne am na ay chambre froide yu mu denc pomme de terre président la république bu jàppul ci lii jàpp nañ ni baykat yi dinañ am problème bu séeréer ren petit magasin la am yoo xam boo fa stocké ay 20 jours lay duré bu ko ëppee day yàqu zone ñaay di ko daggee bayax nootu guy jama jàpp jogo fas booy bu póotu baykat yi nekk fii nee nañ ren jii de dinañ am perte bu rëy rëy lu jëm ci wàllu légumes yi nga xamante ne bàyyi nañu ko RFM Thiès Cheikh Anta Diop. RFM sëñ Cheikh Anta ñu koy gërëm dalal sëñ Cheikh euh, Ahmed Tidiane Diagne maa ngi lay ziar. maa ngi lay fay El Hadj Assane. bisimilah daal di ko door rek wàllu football ak euh, Tëngéej FC mi nga xamante ni moom moo teewal Sénégal ci wàllu Ligue africaine des clubs champions ñoom nag ni ki démb di dinañ leen éliminer ci la jongante la ko waral moo di jongante gu ñu ñàkk démb ci Alger seen diggante ak ñii di waa Mouloudia benn bal ci dara la leen Mouloudia daal di daan but ba nag ñu encaissé ko ba match amee ñaar fukki simili ak euh, juróom Tëngéej FC gis ni daal amoon na jafe loolu daal mën a am ay occasion de but na ma ko ñàkkee koy itam démb noonu la ko maak euh, ñàkke woon itam manche arabe bi fii nii ci Thiès benn bal ci dara ci diggante mag équipe boobule ci groupe euh, D bi ba tey euh, jàppale ni Zamalek bu Égypte moom démb yi dafa daal di ñàkkaat ci diggante mag Espérance bu Tunis benn bal ci dara ci match aller ba doomu Égypte yi di vice champion d'Afrique dañoo ñàkkoon itam ñetti bal ci benn seen digg ak ñii di waa Espérance bu Tunis Espérance bu Tunis gannaaw ba mu amaatee ndam ci ñoom nga xam te ni moo di quart de finale Ligue africaine des clubs champions Mouloudia mu daan démb ñi nga xam ni ñoo di waa Teungueth FC ñoom jamono gi am nañ juróom-ñetti poñ euh, féete si ñaari place bi euh, daal di jekk lool ngir mën a euh, foqati geneen ticket bi ngir mën a qualifié ci wàllu lii di quart de finale googu les compétitions Zamalek bu Égypte moom ñaari poñ la daal am waaye nag ay chance am néew na lool ngir mu daal di ci li nga xam ne moo di quart de finale FC moom moo féete si ñeenteel place bi daal am benn poñ ci ñetti jogante yi nga xam ne jot na ko football wala bokk Longoria Athletic Club uh, bu Guinée démb dafa daal di match nul ci dëkkam Conakry diggam ak ñi di waa Wydad Athletic Club bu eh, Casablanca geneen eh, xibaar ci ñeel eh, équipe bu Guinée googule ki di Khadim Diaw doonoon joueur génération foot moom na ma ngay évoluer ci équipe boobule dem ba jot naa football sax ba match bi jeex te équipe boobu ka leen di tàggat doomu Sénégal itam waa Orea kii di Lamine Ndiaye AS Vita Club ñoom RDC lañu daal nekk République démocratique du Congo ñoom dem ba dañoo ñàkk seen dëkk seen diggante ak ñi di waa Al Ahli bu Égypte ñetti bal ci dara Mamelodi Sundowns di équipe Afrique tàggat bu bees bi di ko jiite di euh, Patrice Motsepe ñoom démb dañoo daal di am ndam seen diggante ak ñi di waa TP Mazembe bu RDC bu Blaise bi benn bal euh, ci euh, dara ñu daal di waxtaane wàllu football ba tey waaye bi la yoon lii di ñaareelu wërgal coupe de la confédération ni ki tey jii ci ngoon ci bu 16h jotee ci stade Lat Dior bu Thiès foofu jaraaf bu Dakar dana fa daal di taseeg ñi di waa CES Sfaxien bu Tunisie euh, ñoom nag waa jaraaf fàttali seen match bu njëkk bi dañoo ko dal di pertoon seen digg ak keneen équipe bu Tunisie léegi nag lu ñu bëgg mooy fexe ba joyanti mbir yi balaa mooy yéex ci kaddu seen entraîneur Cheikh Gueye ñu déglu ko gannaaw conférence de presse d'avant match bi nga xam te ni démb mi ñu doon amal. léegi mënatuloo football ak sa adversaire te xamuloo ko ndax en fonction ni muy footballee yenn saa yi ngay orienté sa football xëy na xool suñu adversaire xamoon ko lu bari keroog moo war a waraloon ñu ñëwoon am benn taxawaay boo xam dañ ko taxaw si ginnaaw tey jii donte xam nañ adversaire bi xam nañ li mu indi xam nañ liggéey ba xam daan ko mën a contra contrecarrer si fubalam bi mais teewul aussi li ëpp solo si match suba bi mooy ñun nan lañ war a taxawee ak nan lañ war a def ba dem si kanam sëkkatal ko ba am dara si kawam donte xam nañ adversaire bi li ëpp solo si suba mooy ñun nan lañ war a fubale ak nan lañ war a def ba nga xamante ni ñun daan dugal mais pas moom a def bu ni mu war a def bu dugal ñu ñun am nañ jàngat buñ seen ba ba nga xamante ni waroon ko mën a éviter je pense que même bu dee match la bu décisif la da ci war dem ak xel dem si ak concentration dem si ak xarañ boo xamante ni mooy tax boo si duggee mën si am ndam ndaxte football moom ñëpp xam na ni pression la si entraîneur pression la si nga xam ñooy jour surtout boo jugee si défaite mais pression boobu ak lépp dañ koy boole rek def ko motivation xam ni tamit euh, Sénégal lañ représenté xam ni jaraaf lañ représenté xam ni dañuy football suñu dëkk kon ñu am beneen xaar xaru kanam boo xam daan ko wane ba nga xam daan mën a am ndam di jaajëfal Cheikh Anta Diop ni taataan yooyu le eh, kaddu fàttali nag Sfaxien bu Tunis ñoom seen match bu njëkk seen diggante ki doomu Burkina Faso yi di waa Salitas ñoom loo doomu Tunis yi ñoo ci amoon ndam benn bal ci dara eh, moom nag eh, seen bébét mooy fexe yi tamit ba lijjanti ko fii nii tey jii seen diggante ak Jaraaf bu Dakar fàttali nag match boobu diggante jaraaf ak Satisfaction danañ ko daal di door ci bu 16h jotee ci Salla Dior bu Thiès ngeen mën ko déglu tamit en direct ci rajo Futurs Médias ànd seeg suñu ndaw bu ñu fa yebal di Youssouf Bodian jàppale ni tamit euh, geneen euh, jongante ba tey groupe googule tey ji diggante Salitas FC bu Burkina Faso lay daal di doon ak ñi di waa Étoile Sportive bu Sahel bu euh, Tunisie. kon mbokk àll laaj asal laata ñuy jeexal rek waxtaanee wàllu huitième de finale Ligue des champions ci Europe. tey yi nag la ñoo fas yéene eh, jeexal li nga xamante ni daal moo di manche retour di ñaari jongante yu am Chelsea moom gannaaw ba mu amee ndam eh, diggam ak eh, ñi nga xam ne ñoo di waa Atlético Madrid fenn yi la weesu woon ñooy daal di di waa Lazio bu Rome tey ji ci ngoon 20 heures ci match aller bi nag Bayern Munich moo amoon na ci ndam lu yaa ñeenti bal ci benn diggante mag doomu Italie yooyu la yooyu la jongante itam di ngeen ko mën a déglu en direct ci rajo Futurs Médias ni ki démb euh, ñi nga xam te ni waa Real Madrid ñoom itam jot nañoo qualifié euh, ci quart de finale Ligue des champion gannaaw ba ñu amee ndam seen digg ak doomu Italie yi di waa Atalanta Bergame ñetti bal ci benn la jësam ñaari match yëpp euh, desk sport bi dina ci ànd ak mbokk yi. rendez-vous bu soobee yàlla. bu njëkk uh-huh. diggante ñi nga xam te ni ñoo di waa Jaraaf. Uh-huh. ak équipe bu Tunisie bi di Sfaxien. ñu ànd see uh-huh. ci suba jant. bu jotee nag euh, ñu daal di jublu ci Ligue des champions. man ma ànd see Malal Junior Diagne ngi daal di ko commenté bégal suñuy euh, auditeur incha allah kon tey na na añi diis. waaw mu nga noonu. <laughs> jërëjëf Cheikh Tidiane. ok. pour man RFM mooy rajo bi gën a dalal Ana ci wàllu cosaan. maa leen di nuyu mbokk yi musée de la femme Henriette euh, Bathily dina dalal fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru mars gi ñu nekk ab exposition caricaturiste bi di euh, Oumar Diakité ñu gën ko xam ci tuuru Odia les femmes dans toutes leurs dimensions mooy thème exposition boobule aw Cheikh Diouf mi nga xamante ni mooy directrice exécutive boobule musée mooy ñuy euh, leeral lan mooy mbébétu exposition bi. tey jii ñoo ngi ni di liggéey ak ki nga xam ne moom mooy. Doro nekk nataalkat bu ñu ràññee ci ci Sénégal muy liggéey ci xeetu nataal yoo xam ni nataalu daanaka fenatal lañ ko mën a wax ndax dina ci nekk di ci yeete di ci wax ay ñoo xam ne ñi xëy na am na ay faiblesse yu ñuy am te sax duñ ko xam waaye moom ci biir ay nataal dana fexe ba génne yooyu yëpp te du la ñàkketi kersa du la ñàkke teegin mu nekk donc xeeti aar boo xam ni daal xeetu nataal boo xam ni daal lu jafe la Odia nag euh, li tax ñu ànd ak moom di def loolu mooy dañu yéene woon ci mois de mars bi déng maam ñu jël nataalam yooyu ñu sotti ko def ci benn exposition bu mag ngir waxtaan li nga xam ne ah, moom la jigéen ñiy dund ci wàllu jafe jafe-jafe maanaam ci wàllu jafe-jafe yi ñuy jànkonteel bis bu nekk di wax aussi fànn jigéen ñi nga xam ne wax dëgg yàlla ci nga xam ne fànn yi nga xam ne ci la ñuy liggéeyee ràññee nañ leen ci loolu ñu nekk ay jigéen ñu jàmbaare mel ni yéen ci média yi parce que yow sax yaa ngi ci bokk yow aana ñu nekk ci politique bi ñu nekk ci affaire justice bi ñi nekk daal ci fànn yëpp fi jigéen ñi di yëngatoo daal ñu tànn ci ay nataal yoo xam ne dañ leen di sotti def leen soit ñu nekk ay nataal yu mag wala yu ñu defar ko ba nga xam ne ku ñëw ci musée de la femme Henriette Bathily di nga ci mën a gise di nga ci mën a jànge di nga ci mën saxree mi kon euh, ay planche euh, caricature Odia yu ñu fas yéene imprimé te mu jagleel ko dundinu euh, jigéen yi moo xam ci wàllu askan wi ci wàllu politique justice mba sax jigéen yi yëngu ci wàllu média yi exposition bi dinañ ko amal ba weeru avril gi ñu dëgmal alarba ji nag comité bi nga xamante ne moom la ñu dénk organisation célébration centenaire Amadou Mahtar Mbow dañu amal ab ndaje ak taskatu xibaar yi ñu jàpp ko bu ñeenti waxtu ci ngoon jotee ca musée des civilisations noires mbokk yi fi la ñu yem ci seen chronique culture di leen jaajëfal ci déglu bi dig daje ëllëg incha allah. comptoir commercial de plomberie du Sénégal CCP.